li ñu dégg ci ay information boo demee itam ci yeneen dëkk euh, ñoom it ñu ngi jàmbat euh, ci ay accusation yoo xamante ni maara day taali waaye nag toujours bu mbir amee euh, baax na ñu bàyyi xel taxawaayu yoon ndax dëkk dafa dafay am yoon voilà règlement yi ñoom ñoo ko teg ñoom ñooy décider ñoom ñooy xool ñoom ñooy juger et ba fii amul lenn loo xamante ni ñun am nañu ko comme certitude ni mm. procureur ci boppam def na ko mm. moo tax sànq ba tey ñu lay poser ay question euh, jëm ci euh, coowal euh, Miss Sénégal bi. Hmm. daañu jéem jokkoo bu ñu ko temps bi mayee ak ñenn ci ay jigéen ñoo xamee ni sànq ba tey maa ngi koy wax dañoo nekk ci kanam di mëne ay combat yu mel ni xeex viol lu jiitu sax. Euh, euh, coow lii di am dinañ ci jokkoo ak koo xamee ni ab psychologue la euh, dama koy tooñ toujours naan ko féministe nga jusqu'au bout des ongles mu ngi tudd Ami Libin elle sera avec nous au téléphone dans quelques instants mais Daouda actuellement dégguñu xaw naa ko fort ci bi mais man amaguma certitude ci taxawaayu hmm. tribunalu Sénégal ci taxawaayu procureur par exemple awma ci lenn lu ma leer man hmm. mais li nga wax noonu moom moo am parce que euh, ci bés yee fan yee passé mhm. gisoon nañ sax dans la presse ñu ne procureur ci boppam dafa def euh, autosaisine euh, mais tey jii loolu amul benn firnde bu nga xamante ne am na ci mhm. parce que procureur bu defee auto autosaisine ñett rek moo la ko mën a firndeel parce que journaliste quand boo bindee mhm. il faut nga am la preuve de ce que tu écris avec autosaisine procureur ci ñett rek moo ko mën a mandargaal moom ci boppam mu def communiqué. di wax ne mbir mi nga xamante ne ñu ngi koy wax boobu ba tey. man décidé naa ci ubbi ci enquête. boobaa nga ne procureur c'est autosaisi. wala mu posé ay acte deful communiqué. mais demande na à un juge mu ubbi une information judiciaire ba que juge d'instruction boobu daal di convoqué commencé di ci ubbi ay enquête nga ne ah procureur kat donc euh, def na autosaisine parce que amul kenn ku porter plainte ci loolu mu jékki-jékki jël benn li ñuy woowee soit transmis benn këyit jox ko di euh, tudd DIC division des investigations criminelles wala mu jox ko section de recherche wala mu jox ko benn brigade de gendarmerie benn commissariat de police ne leen dama bëgg ngeen ubbil ma enquête ci loolu noonu. am na mm-hmm. possibilité. Mm-hmm. bu boobaa nga gis ni. Euh, police convoqué na wala gendarmerie convoqué na te am woon benn plainte bu nga xamante ne. victime ba pose te woon na ko nga ne ah procureur dafa def autosaisine mhm, mhm, mhm. donc ñett yooyu bu amul rek mënoo taxaw rek nga ne procureur def na autosaisine soit def na communiqué wala activé na juge d'instruction et jusqu'à présent yooyu yëpp wala activé na police wala gendarme présent yooyu yëpp amu ci voilà procureur a ngi fi juge yaa ngi fi avocat yaa ngi fi yoon mu ngi fi waaye nag heureusement itam ba am na ay nit yoo xamante ni saa yu problème amee euh, dañuy jóg Euh, di mener ay combat yu noble euh, histoire baa ngi tàmbalee surtout euh, par rapport ak coowal mi Sénégal bi ak Ladies Club c'est des c'est des groupes de femmes qui existent depuis très longtemps ci réseaux sociaux yi ñu ràññee ci par exemple Femme Chic bi coow li amee rek ku mel ni Mamiko d'ailleurs on l'encourage puisque depuis hier ñëpp a ngi koy soutenir moom itam mu def rôlam en tant que porteur de voix jël ay témoignages yu Miss am na itam ñu tudd Ladies Club daanaka lépp ci ñoom la tàmbalee dañ ci jokkoo ak kenn ci ñoom di koddu Aïcha Faye koddu euh, ñu ngi lay nuyu euh, bég nañu ci euh, jokkoo bi boobu ba tey àddina bi yëpp di waxtaanee coowal Miss Sénégal j'espère que je peux continuer Allô? voilà parce que maa ngi jéem dégg ak ki nga xamante ni moo di Kodou Aïcha bu fekkee mu ngi ci ligne bi ñu nuyu ko Kodou ñu ngi lay nuyu. allo. voilà ñu ngi jéem a jokkoo ak euh, kenn ci euh, euh, waa Ladies Club koddu ay Faye très dégourdi comme les autres koddu Bigué Khadinian Diakhaté Mamiko Regina c'est des voilà quoi c'est des ay jigéenu jàmbaar lañu kenn du leen ne boo doon góor ñoom ñeme nañu combat yoo xamante ni góor ñi sax ñeme ko nekk ci front bi et puis di combattre lu jiitu sax coow lii koddu yaa ngi ñuy dégg. Koddu Aïcha oui voilà ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay gërëm ci euh, euh, jokko bi nga ñu nangul euh, ci midi plus bi gis nañu ni boobu ba tey yéen a ngi taxaw ci coow li nga xamante ni àddina yëpp dañu ko naqarlu lan mooy seen taxawaay actuellement ginnaaw plante bi juddu ci ki nga xamante ni moo di Mamiko Codé Aïcha Cheikh maa ngi lay di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp di nuyu aussi say téléspectateurs. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee Ladies Club moom lépp ci ñu la commencé maanaam mbir mi sax tàmbalewuñu ko ci euh, mami ko tàmbalewuñu ko sax ci bi ñu déggee waxu viol. Mm-hmm. mais ñun depuis ñu far ko nii defe naa ci lañ commencé di ko défendre. Mm-hmm. parce que gis nañu waa Sénégal ñu ñu ko. taxawoo woon wax bu nekk dégg na ko ba mois de juin bi passé rek Ladies Club na benn document ci loolu. Mhm. waaye nag comme tey la ñu wax ak plainte bi ñu yónnee mami ko ko. ñun ñëpp dañ koy jàppale. parce que tey Ladies Club euh, nga wax sànq maa ngi lay dégg lépp si ñu la tàmbalee lépp foofu la tàmbalee. Mhm. groupement de ñoo tam jàpp si. Mhm. mënuñu comprendre mois de janvier 2020 président de la république jàppale ñu ba ñu criminalisé viol. tey benn jigéen ñëw di def l'apologie du viol kooku porté suñ ko plainte muy njëkkante di porté plainte moom moo mu jigéen mhm. tey dama yaakaar ne bu fa bu Fatima ne dañ ko violé mu mhm. si prononcé wu parce que am enquête amaguñ ci guñ cee wax mais moom moom mi nga xamante ne moo doon toppatoo bi si moo organisé dama yaakaar dafa waroon dem ci côté Fatima mais du ëlbatiku ñëw di banaliser viol bi di banaliser comme lu mu wax ni loolu lañ ko def d'accord donc yéen yéen yéen accusation bi leeru leen mais lenn moo leen leer ni am na muy apologie viole ah loolu la accusation bi mënaguñ ci wax ndax comme mbiru yoon la te procureur waxagu si mhm. Fatima tam déposé wul plainte enquête amagul mhm. duñu mën a prononcé wu mais li ñuy li ñuy li ñuy naqarlu di ko métitlu mooy mu fu mu mënee toog def conférence de presse di def apologie viol te criminalisé viol viol ci Sénégal te muy jigéen ñun loolu lañ ci loolu moo loolu la ñuy naqarlu parce que dafa yaakamti rek waaye plainte am mi ngi doon ñëw xëy na nag saaga yàkkamtee xeex la waaye dinañu fekk ci combat bi. voilà yan acte ngeen posé bu weesoo euh, Facebook live euh, ak témoignage yu miis bu yàggul euh, ci seen diggante ak Mamiko est-ce que tegaat ngeen yeneen acte gis naa ay pétition ak ay lettre plainte. waaw def def nañ pétition actuellement sax pétition bi mu ngi ci soixante mille signatures. yéen ngi ci soixante mille signatures. parce que sànq ni laa la mën a wax noonu. Mhm. waaye bu soobee yàlla suba ñëpp dinañ dem tribunal ku ci nekk déposer plainte. d'accord ñu jigéen ñëpp dama matin à du jigéen ñëpp sax jigéen comme góor. ñëpp ñi nga xamante ne rek xam nañ ni viol du yoon da koy def apologie bi war ñëw ngaan nga taxaw lu jéggalu ëlbatikuwaat na naan da ngay porter plainte koo xam ne mi ngi xeexal jigéen ñi. Mhm. loolu duñ ko duñ ko seetaan. d'accord ñëpp dinañ dem au tribunal. déposé ñu tam suñu plainte ba pare ñu dinañ continuer tam suñu pétition. voilà Mamiko dañ ko convoqué wala. Mamiko ko oh, waaw bi bind nañu wax nañ ko ni ko dañ ko convoqué. ah on euh, bi may bi may mujjee jokkoo ak moom jotagul plainte bi. waaye am na si ay am na ñu ko firndeel ni ko effectivement ndaw si porte na ko plainte. mais jotagul plainte moom. Ah, man bi may mujjee wax ak moom jotagul woon bi. d'accord mais ah, am qu'est-ce que vous avez prévu de faire euh, fàttaliwaat ñu ko vous vous avez décidé ngeen def euh, euh, ñu jox joxante rendez-vous tribunal c'est ça. nañ joxante rendez-vous tribunal suba 9h. suba 9h ñun suñu plainte bi nañ ko joxe. voilà nañ joxe plainte parfait euh, euh, problème bi nag du euh, Miss Sénégal bi kese bëri na ci ay nit yoo xamante ni euh, ñu ngi fii ci dëkk bi euh, dundu viol mais malheureusement euh, mënuñu ci wax mënuñu ci communiqué amuñu fit peut-être ndax pression sociale bi pour témoigner wala pour wax li nga xam ne dund nañ ko ci ay jafe-jafe par rapport ak viol bi qu'est-ce que vous avez prévu pour ces autres femmes la yi dund lii di viol waaw ñu am fit la viol déjà daf lay marqué à vie buñ la violé société bi dafa am tendance bi la stigmatiser xam nga tubaab mën nañ ko violé mu dem ne dañ koo violé siiwal ba fa wane wane boppam ñoom seen culture xëy avancé nañu si loo xamante ci ba nga xamante ne tey nit buñ buñ ko violé day dañ koy yërëm mais Sénégal buñ la violé li ñu njëkk a wax lu mu def bañ violé ko lan la fa doon ut lan lan lan lan moo tax waxu ko boobu ba léegi mais lii moo tax duñ ko wax ndax ñi nga xamante ne keroog ci live Mamy Coco bi wax nañ seen ay viol wala wax nañ seen accouchement yu ñu leen def la nangam lan lan la ñu wax lan moo tax ñu toog ba heure bi ñu koy soog a wax. Mm-hmm. est ce est ce que est ce que dëgg la est ce que nangam alors que buñ la violé. Mm-hmm. duñ nit ñi duñ la déglu. Mm-hmm. xëy na say mbokk tamit du ñu bëgg nga wax ni ñu wax ni ah diw ko dañ koo violé. pour pour moom daal loolu dafay dafay taachal famille day yàq dew famille wala alors que. viol yow la concerné. Mhm. ñi lay ñi lay tere pour nga porter ji plainte rek dina naan la bul rusloo famille bi bul bul kii sa boppam mën nga après too am jëkkër bu ñu xamee dañ la violé ay détails yu doy waa mhm. ba tax nga nga denc loolu ñoom bu ñu tëddee dañuy nelaw te yow boo tëddee doo nelaw. Mhm. léegi nag li ñu njëkk a def mooy qu'on écoute les victimes. aujourd'hui les ladies club ak beaucoup d'associations de dinañ teg eh, mbir yi nga xamante ne képp kuñ violé te mën nga ñëw waxtaan ak ñun ñu jàppale la nga dem porter plainte. parfait te du am benn problème nañ la déglu pour premièrement mooy déglu bi. voilà may na sig ñeme loola parce que ku ñu violé en général da ngay ragal. est ce que est ce que boobu ba tey déggante ngeen ak euh, miss bi ak yaayam puisque ñoom ñoo def déclaration ci internet bi. waaw miss miss bi ak yaayam tamit ñu jot nañ am nañ écho ne ñoom dañu ba retiré wala bu ñu defati plainte bi ñu doon def wala liñ jotoon a wax sax dañ ko arrêté ñun amaguñ ci lu ñu leer. Ah. aujourd'hui Ladies Club ñun. bu combat wu Miss c'est-à-dire que toutes les femmes violées la. Miss bi bu porté plainte dinañ ko ci jàppale. su porté wu plainte ñun moom dinañ dinañ eggale suñu procédure. parfait en tout cas euh, combat bu noble la et que tout le monde vous soutient euh, da ngeen di euh, bàyyi seen lépp consacrer seen addina ci jàppale seen ay moroomu jigéen peut-être amuñu possibilité ñoom possibilité bi ngeen am nekk ay porteuses de voix merci en tout cas ci intervention bi. Euh, de tout cœur avec vous de tout cœur avec euh, euh, Mamiko et puis ñu ngi xaar taxawaayu justice ci coow lii ñu ngi lay gërëm bu baax ko du Aïcha merci euh, ci euh, jokkoo bi euh, Daouda peut-être l'une des dernières questions da ci bokk laataa ñuy jokkoo ak Amy Libin moom psychologue la elle fait partie aussi de ces femmes comme Aïcha code Aïcha bi woote léegi nii moom yàgg na xeexal jigéen ñi surtout ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñoo ngi koy dund lu ci mel ni viol aujourd'hui yoon am na ñu ngi xaar taxawaayam mais gis nañu ni itam ni muy réseaux sociaux yi muy internet bi nit ñi xaaratuñu Mmh. yoon mmh. nit ñi xaaratuñu mmh. justice bu dara amee ne këtt ni jonn dinañu ko dénoncer après doog xaar taxawaayu yoon lu baax la waaw lu baax lu baax la parce que dina permettre ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy victime ñu xam ni nekkuñu sël ci combat bi nga xamante ne dañ koy def. Mm-hmm. wala li nga xam dafa dal seen kaw am na ñu nga xamante ñu ngi ñoom di ko masoo ak ñoom. Mm-hmm. peut-être dina leen soulager un tout petit peu. Mm-hmm. mais su fekkee nag dañu bëgg à ce que euh, réparation am. ki nga xamante moom moo leen tooñ. ñu mun ko teg ay daan ala kulli yoon la mën a mujjee. parce que tey jii du réseaux sociaux yi ñoom ñooy régler li nga xamante moom mooy justice. Euh, victime bi si boppam sax a Ziguinchor moom mu jël li nga xamante moom la a jël comme matuwaay. Mhm. tey jii dégg naa ko nu mu ko waxee ay pétition yi nga xamante ne nit nañ ko def ak euh, plainte yi nga xamante ne danañ ko bëgg nañ ko déposer. Mhm. am nañ ci droit. am nañ ci droit parce que pétition boobu dafay permettre rek euh, na laa koy wax au procureur de la république. Mhm. mu xamante ne ci askan bi am na ñu nga xamante taxaw nañ pour que moom ci boppam mu taxaw euh, jël ay matuwaayam. def ci li ko ci war. ña nga xamante ña nga xamante dañ ne dañuy dem ji di ji plainte. am na am am nañ ci droit parce que infraction nit ku nekk mën nga ko dénoncer. muy man mun naa ko dénoncer muy yow mën nga ko dénoncer muy ñoom ñi nga xamante ne dañu nekk ci ay kuréel. ñi nga xam dañuy défendre les droits des femmes. mën nañ ko mën nañ mën nañ ko mën nañ koo mën nañ ko déposer. Mm-hmm. mais buñ ko déposer ba pare nag procureur ci boppam. moom moo war a def li nga xamante moom moo ko war fexe ba nga xamante ne plainte yooyu ñu mun ko instruire. Mm-hmm. maintenant nag damay fàttali sànq maa ngi ko doon wax que ni. Mm-hmm. Euh, dans une procédure pénale dafa am ñaari volets. dafa am volet bi nga xamante ne dañ ne action publique la. Mhm. ak volet bu nga xamante ne action civile la. Mhm. maanaam ñoom ñi nga xamante ne par exemple ñi ngi porté ji plainte mënuñu lu dul ñu ne ak ah kii kat tooñ nañ ko nañ ko jox ndàmpaay nangam. Mhm. du ñoom ñoom ñooy wax par exemple nañ tëj kii fukki at nañ ko tëj juróomi at nañ ko tëj ah. ñaar du seen cër. parce que moomuñu action publique action publique procureur moom moo ko moom ça on l'a compris dès le départ on l'a compris ah, ña nga xamante ne également ñoom ñooy euh, victime bi sax moom ci boppam mhm. muy ku jigéen ki ak yaayam mhm. ñooñu tam bu ñu portoon plainte bi ndàmpaay rek lañ mën laaj mhm. mënuñu demander ñu tëj ke wala ñu tëj kale donc il revient au procureur moom ci boppam mi nga xamante moom mooy avocat de la société encore une fois mu gis ni ah naam am na infraction mu topp ka nga xamante ne moom lañ jàpp ni moom moo def infraction bi et que même bu fekkoon ne déclenché woon na tey mhm. moom procureur mhm. déclenché woon na enquête wala ñu déclenché woon procédure contre quelqu'un bu nga xamante ne moom moo def benn ñaawteef mhm. même ñu la bu ñu retiré seen plainte taxul affaire ba yem fa dafay continuer donc loolu il faut que ñoom ñu comprendre ku ci nekk da ci am cër mhm. ka nga xamante action civile la moom ndàmpaay rek la mën a laaj mhm. heure bu da demee ba retirer plainte am mooy renoncer na ci ndàmpaayam mhm. mais la nga xamante moom mooy infraction ba nit ko def mooy ñaawte ba nga xam nit ko def na ko bu retiré plainte sam taxul loolu mu tax loolu mu taxaw donc amul sañ-sañ ne tëjal ma ko nangam am na sañ-sañ amul sañ-sañu dama bëgg nga dàmp kële tëj cent mille francs wala un million wala deux millions. Mhm. sañ mooy dama bëgg nga tëj ko nangam dama bëgg nga tëj ko nangam donc mhm. ñaar yooyu c'est c'est clairement c'est clairement. voilà barki dem ba bi fii euh, coowu euh, euh, xaru bi amee. Mhm. am na jàngat bu am solo boo xamee ni def nga ko. ba ñu bëri di ko rafetlu. balaa ñuy tàggatoo ak yow ban jàngat ngay def ci situation bi nii actuellement. qu'est-ce que lan ngañ ci ngañ ci war a wax comme jàngat non dama yaakaar ni tey bu fekkee ne dañu am benn société bu nga xamante ne société dañ ko organiser ñëpp ñi nga xamante ne dañ ci am ay prérogative dañu war a doxal seen prérogative lu mu waree man dama jàpp ni procureur de la république bu fekkee ne yow da nga am ay pouvoir d'autosaisine yu nga xamante ne dañ la ko jox yow yow yaa war a def li nga xamante moom moo ko moom moo la war dès le début mm-hmm. donc waroo xaar ba coow sax di yegg benn niveau pour que ngay régler benn problème mm-hmm. dañ ne man mënu fajal sama bopp yow mënoo fajal sa bopp mm-hmm. ña nga xamante ne seen bëj dafa xonq am nañ kenn ku nga xamante moom moo leen war a fajal seen mer mm-hmm. mooy procureur de la république mooy avocat de la société mm-hmm. moom également texte yi permettre ko mu am yenn pouvoir yu exorbitant dangay ngay dégg sax ñu ne la procureur dafa am ay pouvoir yu bari. Mhm. ba pouvoir a wàññi. Mhm. mais pouvoir yu bari yooyu nag il faut que mu koy utiliser au bénéfice de la population mhm. sénégalaise. parce que jàngal nga ñu ni moom mooy avocat la société la société. tey jii mineur sax dañuy wax ne doomu procureur la. voilà même ci ci la ah, nga <laughs> dëgg la <laughs> dëgg la ah, dëgg la benn mineur da la. donc li ñuy xaar mooy. que mu nekk coow bi que mu nekk beneen coow. Mm-hmm. Sénégal c'est traversé par des scandales. Mm-hmm. traversé par des coow. Mm-hmm. coow yooyu yëpp bu amee. moom na jóg def ay matuwaayam. loolu dafay soulager nit ki ba du jéem a sax fajal boppam. day soulager nit ki ba nga xamante ne peut-être ay yenn ñaawteef yoo nga xam dañ ko fiy dégg après. ay trouble à ay manifestations yoo nga xam dañ koy dégg. yooyu yëpp parce que dënn yu tàng la. parce que tout simplement dañ jàpp ne juste doxewul nu mu war a doxee. donc nag jàpp nañ ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a faj meru nit ñi. bu ñu defee lu ñu war a def. xam nga problème dootu am te bu boobaa dañuy am des rapports pacifiés. Mm-hmm. dañuy am société bu nga xamante ne mi ngi dox normalement parce que dañuy wax ne encore une fois la justice c'est le dernier rempart. Mm-hmm. mooy dernier rempart. Mm-hmm. donc justice bu doxee normalement rek société bi dina dox normalement. donc dama jàpp ni que mu nekk problème bi que mu nekk problème bële que mu nekk beneen problème également il faut que justice. ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor suñuy suñu suñu kàddu mhm. yor euh, na laa koy wax suñuy levier pour fajal ñu suñuy maire mhm. nañu war a doxale nu ñu war a doxale def seen affaire yi convenable mu nga comme quoi mën nañu dénoncer mais bu ñu fajal suñu bopp non mënuñu fajal suñu bopp parce que boo fajee tooñ boo tooñee tooñar bi sax da ngay dal sa dañuy dal sa kaw boo tooñee tooñar bi bu ñu la tooñee bi dañuy dañuy dal te tooñar bi faj fajal sa bopp mooy fajal sa bopp mooy fajal sa bopp mais dénoncer bi moom dara dénoncer dama lay jot exemple mhm. boo demee rëbës gi di nga gis nit ku nga xamante ne mu ngi fa kaso. Mm. xamul lu ko fa dugal. Mm. fay dafa loué këram. Mm-hmm. locataire ba fayu ko. xam nga. mu attaqué ko moo ngi moom ak dóoram dóor ko ñu dóor ko causé blessure volontaire mu am certificat médical 21 jours ñu yóbbu ko kaso. alors que moom la ñu tooñ ñu tooñ. dëgg la parce que nit looyee na sa kër fayu la. mais fajal nga sa bopp dem nga kaso. te di ko fay dàmpaay bu nga xam moo ëpp la waroon a fay. dëgg donc pour wax leen fayal sa bopp. <laughs> wóorul sax <laughs> merci en tout cas Daouda. Ah. Euh, kontaan nañu jël nañu sa temps mais dañu lay bàyyi nga daw àggali liggéey bi juste rappeler aux téléspectateurs que ci euh, moo xam cas bi moo xam yeneen yi actualité euh, à suivre en temps réel et de façon très crédible euh, ci site internet bi di www.igfm.sn c'est-à-dire moi euh, toutes les informations que je partage avec vous dama koy jëlee euh, ci site internet bi ndaxte liggéey bu crédible la ñuy proposer internautes bis bu jot merci Daouda Mine et à demain certainement ci Info Matin. waaw incha allah incha allah ñu ngi lay demain c'est mercredi <laughs> ci leneen en attendant. 13h55. Euh, mooy euh, doog a jot on finira peut-être cette émission par jokkoo ak koo xamee ni ab psychologue la bu ko defee moom it euh, mu jox ñu taxawaayam ci cas bi en attendant on va retrouver Mamadou Ndiaye pour mu wax ñu lu xew biir internet et je reste encore convaincu que li ñuy waxtaanee mag Daouda depuis sànq moo lëmbee internet bi mu Mamadou Ndiaye. ni nga ko waxee noonu la El loolu moo lëmbee internet bi ak réseaux sociaux yi juste après rek ñëw ak li xew ci biir internet nuyuwaat nañ leen yéen internautes yeeg téléspectateurs yeeg ñi nga xamante ale ñu ngi gërëm bu baax euh, Mamadou Ndiaye bis bu jot ci midi plus bi moo ñuy wax li xew biir internet euh, li xew biir internet nag yëpp gis ngeen ko euh, donc ñu ngi koy gërëm ak hashtagam hashtag sunu net et puis hashtag bi di midi plus on enchaîne avec la dernière partie bu leen fàtte nag ni orange moom wàcce na mbir yi ba zéro ak seen calpe orange monnaie désormais kenn dootul fay frais de retrait ça c'est une information qu'on a muy lu am solo loo xamante ni clients yi ñu ngi koy rafetlu mooy doog a jot bu fekkee yéen a ngi añ ñu ngi leen di wax bon appétit sànq nag ba tey ñu ngi euh, doon indi ay explication jëm ci coow li nga xamee ni moo fi am euh, par rapport ak euh, scandale bi lee jëm ci Miss Sénégal bi daaw de miin journaliste miin lool lépp loo xamee ni jëm na ci wàllu droit indi na ay explication yoo xamante ni ça nous a permis de comprendre pétition yeeg témoignage yi mu ngi juddu ci taxawaayu Ladies Club di ay jigéenu jàmbaar xamante ni boobu ba tey ñu ngi wone euh, euh, seenug euh, njàmbarte ci lépp loo xamante ni soxal na ci naka la ñu war a jàppalee jigéen am na ci itam keneen koo xamee ni ràññee nañu ko bu baax ci xeexal jigéenu Sénégal non seulement psychologue la waaye bu weesoo psychologue bi mu doon toujours combat wam daf koy mëne ngir ñu gën mën jàppale jigéen ñi ci seen taxawaay donc dañu koy tënk rek de façon très globale Euh, ci euh, yëfi mi Sénégal beeg yeneen i mbir yoo xamante ni euh, sonal na jigéen ñi am baat boo xamee nii dafay faral di génn tubaab tuddee ko sexisme loolu bokk na ci seen combat ak ci seen combat ñoom ñu jokkoo ak ki nga xamante ni moo di Ami Libin Libin maa ngi lay nuyu di la gërëm ci nangul gi nga ñu nangul jokkoo bi fan yii yëpp àddina yëpp di waxtaanee coowal mi Sénégal mais dama bëggoon sa intervention de façon très global ban jàngat ngay def ci situation bi actuellement en tant que jigéen mais en tant que psychologue Amélie Bain d'accord merci beaucoup Pape maa ngi lay remercier aussi ci invitation bi di nuyu téléspectateurs ak téléspectatrices du TFM bi yëpp. Mm. alors man sama jàngat ça va peut-être aller euh, dans un sens différent. Mm-hmm. déjà samay premier mot c'est masawu. ak euh, wax ne toutes les victimes de viol et les survivantes de viol. Mhm. que ñoo ngi ci seen wet que ñoom lañ leen que wéetuñu ci combat yi. Mhm. et que on est avec elle et qu'on pense à elle fortement. Mhm. parce que parce que li ñuy fàtte mooy que à chaque fois que scandale yu mel nii am. Euh, pour qu'on banalise en fait le viol et ses effets dafay jiyee ay traumatisme ci ñi nga xamante mës na dund lu mel nii. Mhm. donc dafa metti à chaque fois nga dégg ñu naan la ah ku ñu violé yow yaa ko tey viol kat moom comme si c'était pas grave. comme mhm. si le viol en fait ne fait pas di acharné wu di acharné ci victime yi. exactement. Hmm. donc dafay jiyee lu bëri am na ñoo xamante ne dund nañ viol il y a vingt cinq ans dund nañ ko il trente ans. Mhm. tegoon nañ ko de côté avancé ci seen vie mais affaire yu mel nii daf l di rappeler loolu à chaque fois ce qu'on appelle les réviviscences traumatiques mhm. donc c'est hyper traumatique pour tout le monde pour toutes les femmes qui ont vécu ça et pour les toutes les survivantes mhm. donc sama premier mot mooy loolu beneen chose euh, mooy que gis naa mobilisation bi je pense que c'est il est important quand quand quelqu'un dit des choses qui de ce qu'on appelle la le fait que ngay banaliser viol. le mm-hmm. fait que nga naan victimes yi ñoom dañoo am responsabilité loolu la ñuy woowee culture du viol te loolu parce que bu ñu waxee dëgg rek du du du lu bees ci dëkk bi chaque jour nit ñi wax ko chaque jour nit ñi wax ko. donc mm-hmm. Adama Badiane même su fekkee ne juum juum na juum na est excusé mais pour man acharnement médiatique bi li muy li muy li muy li muy nëbb ci suuf mooy que y a du sexisme justement c'est-à-dire que on est dans un pays boo xam ne deux poids deux mesures moo fi am. de mhm. day génn wax lu garaaw. ñëpp ne ah moom kat li mu wax rek su ko neexee bu jéggalu su ko neexee bu jéggalu il aura toujours du soutien mais il suffit que ça soit une femme on ne pardonne rien du tout dans ce pays. Mhm. alors que il ne faut pas oublier que l'affaire ce n'est pas Amina Badiane l'affaire c'est un système quel système permet en fait que des femmes comme ça soient utilisées. que les femmes soient violées en toute impunité et que justice ne soit pas faite. maanaam que ñu gën a que ñu que ñu gën a globaliser combat bi. voilà voilà bañ ko cibler rek ci benn point. il ne faut pas cibler le combat parce que le viol est est est euh, un phénomène qui est tellement global et qui est tellement banal c'est-à-dire quand je banal c'est pas dans les conséquences c'est-à-dire mais c'est quelque chose qui arrive fréquemment. c'est quelque chose qui arrive fréquemment te boo demee justice même si le viol est criminalisé par chaque figure-toi que ne ay peine deux ans trois ans ñoo fay lañ lay jox mm-hmm. donc même la criminalisation ne résout pa le ne résout pas la question des violences sexuelles dans ce pays. Donc je ne veux pas qu'on en fait sur cette femme. Il faut qu'on se dise qui sont les violeurs. Et puis je vais dire quelque chose, peut-être que ça va choquer les gens. Mmh. Mais mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñoo violé la dame euh, Fatima Dione ba mu jógee ci doom ñoom peut-être que ñoom ñuy déglu pourquoi personne ne s'est levé pour se dénoncer dans la à la justice mhm. pourquoi mm-hmm. kenn jógul. Mm-hmm. donc viol c'est le seul crime boo xamante ne moom la ñu ñàkkal fayda ci dëkk bi. ba mm-hmm. pare su dara amee énu ko mu doon xeex entre jigéen parce que la tournure bu muy jël en fait on nous fait passer un peu pour voilà des femmes qui qui qui se querellent entre elles alors que c'est pas ça. on s'attaque à un système. Mmh. donc on s'attaque à un système qui est beaucoup plus grand boo xamante ne les gens sont impunis boo xam ne même sans on va en a très et maintenant lan moo war a nekk taxawaayu euh, ñi jóg ngir euh, mener combat bi que muy Femme Chic euh, que muy Ladies Club que muy ces autres groupements de femmes qui soutiennent ces femmes qui souffrent à cause de viol yow en tant que psychologue ci xam-xam bi nga am lan moo war a nekk seen taxawaay au moment où ñuy wax ak fi bi toll nii. gën boole suñu bopp parce je suis solidaire de toutes les actions que les que posent en fait. Mhm. li may bañ rek mooy kooku s'acharne alors que y a des choses aussi à côté qui se passent et on laisse passer comme si dafa am ñu ñuy baal am ñoo xamante ne duñu mhm. mhm. je suis solidaire à toutes ces femmes qui vont demain je vais aller au tribunal pour déposer plainte symboliquement. à 9h ce que cela veut dire pour moi c'est que il faut que la justice soit faite il faut que le système système qui permet que des femmes soient exploitées dans un concours aussi prestigieux que Miss Sénégal, il faut que ce système soit démantelé. Mhm. Il faut que les hommes qui se servent euh, de ces femmes-là soient, soient, Il faut que ce système soit démantelé. e il ne faut pas qu'on oublie, et ça je pense que c'est hyper important, et ça je parle en tant il faut pas qu'on oublie de prendre en charge les femmes qui en ont besoin. Mhm. C'est très bien de se mobiliser, c'est très bien, il faut pas oublier que les se réveillent, il faut pas oublier qu'il y a Fatima John qui a un enfant qui a peut-être besoin de soutien, qui a peut-être besoin d'autre chose, mais voilà, il faut pas qu'on oublie aussi d'apporter un soutien matériel et un soutien psychologique à toutes les femmes et à toutes les survivantes qui en ont besoin, et également profiter de cette occasion. Parce que pour moi, si on lutte contre la culture du viol, c'est-à-dire que genre de parole yi nii waratoo ñu ko dégg. que ça soit dans l'espace médiatique wala dans l'espace privé. Mm-hmm. donc il faut qu'on mette des actions concrètes que à chaque fois que ces paroles que ces paroles ne se reproduisent pas mais aussi que les gens sachent lan mooy la culture du viol. et que mm-hmm. ça soit juste pas euh, l'apanage en fait des féministes. voilà et euh, euh question sàq mi nga sama lañ ci c'est vrai mais fii nag la ñuy xamee njëriñu psychologue. waaw. <laughs> ci genre situation yi la ñuy xamee njëriñu psychologue en fait. les Sénégalais les Sénégalais savent a bien à faire un euh, football parce que su ma su may lire message yi may jot Facebook que ça soit sur Twitter et tout ça je pense que les gens savent en fait mais parfois peut-être que dañuy am ay appréhension parce qu'ils se disent peut-être voilà su va falloir que man je dama dama dof wala j'arrive pas à régler mes problèmes et tout ça donc mmh. en fait a le fait également que le le fait de de de demander en fait de l'aide, de demander des soins, c'est un peu mal vu également. Mmh. je pense que c'est des plateformes comme ça, c'est hyper important et ça permet de se dire, OK, on peut aller voir un psychologue et enfin voilà, sans, sans tout va bien, mais aussi parfois quand tout va, quand tout va bien, mais aussi parfois quand tout va mal. Donc, et, et qu'il de stigmatisant à aller voir euh, un ou une psychologue. il faut avoir confiance aux psychologues. Je rappelle que yow yaay sama psychologue. Merci en tout cas d'avoir accepté d'intervenir très rapidement ci euh, coow li fi am ñu ngi lay gërëm bu baax Ami Libin Beng. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Ñu euh, jeexal programme bi bëggoon nañoo toogaat ba ci kanam mais bon li ci des ci programme bi mooy dàq bu ca kanamee di ngeen àndandoo ak Evatra Mami Diop ak inspecteur Ndoye Bane et bi euh, bu ñu demee ba ca kanam di ngeen àndandoo ak euh, Abba No Stress Mamran euh, Bessel ak ki nga xamante ni moo di ñaatam ba ci seetu Sénégal et puis tey ci guddi déclic je serai pas là vous serez en compagnie de Dieynaba Seydou Ba et sa bande de journalistes dinañu recevoir ki nga xam ne ni moo di El Hadj Ousseynou Diouf on parlera football sport ak carrière am puisque deux fois Ballon d'Or c'est pas donné tey ci guddi loolu lañ leen di proposer en première partie de soirée on a reçu beaucoup de messages de soutien à Mamiko ko nous soutenons parce que euh, mu ngi ci combat bu noble ak ñeneen ñi nga xam ne ni ñu ngi ci réew mi di góorgóorlu euh, ngir di jàppale seen i moroomu sénégalais euh, ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund on pense à Amina Doudou Thiam mère Soukay c'est ma petite maman que j'embrasse très fort on pense à Khadija Diakhaté Mami Fane Ndiaye madam Ba ak groupement bi mu àndal ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm merci en tout cas pour ces boo message gërëm équipe yi ma àndaloon Pape Samba Thiam moo ko jiite technicien yi ñëpp ku lim juum euh, ñu ngi leen di euh, gërëm daañu dellu si incha allah suba euh, bu 11 h cinq jote gërëm orange bi nga xamee ni wàcc na fi ba zéro ak seen Calf Pay orange monnaie désormais du ngeen fay frais de. Euh, frais de retrait et puis ñu ngi gërëm tamit sucria sucre bi nga xamante ni moo baax ci jabet baax itam ci ku jabetul gërëm itam ataaya bi ñu àndal di tee gaynde bon appétit bonne journée et à demain 11h45